asbillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xeyra xadimihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi tàmbalee sunu kàddu ci ab nuyoo akub ziar jëmale ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolub lislaam moom mën ko def te ànd ko ak moom di am mbégte di tase yéen fii ci barab bi nga xam ne mooy daari Cheikhul Khadim ci fan yi nu toll muy waajal tàmbali liggéey bi mu doon jàngukaay boo xam ne nag moom day sofu rek ci liggéeyub sëriñ bi nga xam ne mooy li mu doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy jàng ak jàngale defar doomu aadama yi ñu mën a texe àdduna texe àllaaxira sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dañ ko yónni ngir mu jàngale xam-xam doon lu am solo nag ci diine ndax gis nañ ne aaya bi nga xam ne moo njëkk a wàcc alquranul karim mën nañu wax ne mooy iqra sëriñ bi nag ñëw moom di xeeñtu rek suna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraam wuutewu wuutewut ak dara yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekkoon fi nag di jàng di jàngale di yare defar aw nit yebal leen ci barab ñoom itam ñu di fa wéyal liggéey booba mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndoon ak moom di ay bokkam di ñu gàddaayoon fekk si ko waaye di njabootu boppam gi ñëpp ci loolu lañ nekkoon eh, bi yàlla dogalee itam nag sëriñ bi làqu yitam ñi nga xam ne ñoo ko fi wutu yëpp rek loolu lañ loolu lañ doon wéyal loolu lañ doon wéyal ba fi nu toll nii Cheikh Mouhamadul Mountakha nag bi yàlla dogalee toogaayam bi mu fekk li nga xam ne moom la ay waajuram ak i ak i magam ci li nekkoon rek biñ toogee toogaayub sëriñ bi wax naa ne ñi toogee wut ñu toogee wutoon toogaayub bi ci loolu lañ nekkoon mu ñëw nag ne moom loolu rek la fas yéene wéyal daal ne cas liggéey bi rek wax ne nag aw ma benn yitte bu dul rek liggéeyub sëriñ bi muy daara ji yàlla dogal mu woote ko ñëpp wuy si ko ñëpp ñëw ànd ko ak moom boroom xam-xam yooyu ñëkk a ñëw déglu li bëgg ñu tërale ko noonu loolu muy jànkoy boo xam ne day tàmbale ci kii dal baasin ba ci njobaxtaan la ñu xam ne la kooku loolu moom kon man xëj la wara doon man xëj tarba bi bu Cheikhul Xadim te mooy bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waajtaay wa nag ñu séddale ko ci ay xaaj yu bari tàmbale ci alquranul karim ji nga xam ne moom mooy cosaanul xam-xam mooy nday xam-xam yëpp te mooy mbirum sëriñ bi itam ñu ci def daare alquran joo xam ne macha allah gone yaa ngi ñëw nii fi mu nekk nii tàmbali di bindu ngir tàmbali jàng mi bu leen bi dalalee incha allah jàngum xam-xam majalis bi nga xam ne moom université yu mag yooyu yi nga xam ne moom la sëriñ bi doon tudd sax mooy alqahira ak basra ak koofa yëpp ay majalis la woon dañoo dox ànd ak jamono ba lekk ba tax ba tey ñu nekk ay université waaye euh, Égypte moom boo fa demee ba nëgë ni ca biir jàkka ji sax am na jàngukaay boo xam ne njàngu majalis la ñu jàngale Maroc gii ñu gën a jege taalimul atiq mooy majalis rek kon boobu itam mu doon pàcc bu ci am solo am itam xismu taalimul aali nga xam ne moom mm, kullee dirasatil islamiya lañ lañ koy tuddee boobu itam doon bu am solo nga xam ne mboolem liñ daan génn fii Sénégal di ko jàng ji ci bitim réew loolu dañ ko fay jànge waaye day am lu ci yokk nag mooy dañ ciy jàng njàngum réew mi mooy taarixu senegal ak li nga xam ne al adabul arabi Sénégal yi nga xam ne sunu mag ñi seen bind seen li nga xam ne def nañ ko ci xam-xam xam-xamu diine jaare ko ci làkku arab waaye itam euh, ni ma ko waxee léegi histoire du Sénégal ak xam réew mi ndax bëgg ñi fi jàng danañ xam ci bitti waaye danañ xam réew mi di ci jàng fa moom itam tasawuf nga xam ne mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi tegoon liggéeyam bu sell bii dañu war koo xam gone war koo xam loolu itam pàcc bu am solo la ciy doon ak itam jumtuwaay yoo xam ne nag jamono laaj na ko yëpp dañ koy jàng ci bitti yooyu dañ ko fi jàngee am na itam kuliye boo xam ne ñoom wàllu wér-gu-yaram la ñuy jàngale UFR euh, science euh, médecine UFR santé lañ koy tuddee boobu moom itam bokk na ci li ñu war a tàmbali nga xam ne moom itam dañuy tàmbalee ci suuf nag ñuy toppatoo soxna yi ñuy toppatoo gone yi ñuy toppatoo wàllu bët ñuy toppatoo wàllu bëñ noonu la ñuy yéegee rek di yéeg ba ci kanam ba ñu àgg ci li ñu tuddee médecine générale boobu itam bu ci ama am solo la am na beneen pàcc boo xam ne moom itam daanaka métier la ñuy jàngale rek métier bu ñu ko waxee nag mooy métier yëpp day dugg ci biir wàllu mbay da ciy dugg wàllu euh, industrie da ciy dugg wàllu euh, technologie dafay dugg wàllu mécanique dafay dugg wàllu informatique lépp loo xam ne daal métier mu nit soxla la moom itam dañ ko jàng ci EFR e boobe ay EFR la sax yu bëree bëri benn bu ci nekk séddali ko ci ay pàcc yu bëree bëree bëri waaye bala ñoo yéeg foofu sax amaan na ay maahid ay institut yu fi ne am na ci boo xam ne ak tasawuf wa dirasatil muridiya la jàngale boobu doon bu am solo boo xam ne mën nañoo daa wax ne daanaka euh, centre de recherche lay doon boo xam ne lépp lu waaye bëgg a xam ci yoon wi lépp lu bëgg gëstu sëriñ bi moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew ak ñiy jàng ci réew mi sax te bëgg a am seen yokk seen xam-xam ci wàllu boobu ñoom itam dañ leen fa mën a bàyyi xel bu baax a baax ak boo xam ne itam maa du loxaat ndax gis nañ ni li mbindum sëriñ bi warees na ko yaatal ba ñëpp mën cee jariñu aw làkk war a tax mu tënku waaye ñi fi jàng itam te soxla ay jumtuwaay ñoom itam war nañu am foo xam ne buñ soxlaa man faa dem jëfandiku fa ci misaal rek nit ki mën naa nekk ci majalis bi ba àgg ci marxala licence ndax marxala bu ñett ñeenteel ba licence lay war a doon waaye mu ne damaa bëgg a defaa waale ci nag meneen métier moo xam ne day laaj ñu waajal ma ci yeneen yeneen i anam yoo xam ne yóbbaale wu ma ko woon ci suuf bu boobaa moom itam mën nañ ko faa dugal tàggat ko fa moo xam nag diir ba nu muy toll moo xam kem lam ca soxla woo nga xam ne bu ci jógee dana mën a defi meneen métier moomu soxla moo xam agronomie la moo xam moo xam mécanique la moo xam daal yam ya nga xam ne daal manque jumtuwaay ya ko manqué woon daal danañ ko fa waajal ba mu mën a defewaat loolu nga xam day daa day a booli ñaar ndax ku ne xam ne ne li ñu bëgg mooy génne koo xam ne aalim rabbaani lay doon xam ne day xam diineem xam nga gën a wér nga gën a sell nga gën a cosaanu te na ko sallallahu alayhi wa sallam indee woon waaye koo xam ne itam nag day doon nitu jamonoom mooy li jamonoom soxla da cay am ay jumtuwaay am ca waajtaay boo xam ne fu ko jamono soxlaa moom dana mën a dana fa mën a taxaw waaye man faa jëlee loo xam ne wala indi fa loo xam ne ñëpp danañ ko mën a jëriñoo man caa jëriñ boppam mën a jëriñ ay bokkam jëriñu njabootam jëriñu askanam jëriñu réewam ba njëriñ loolu law ba àddina bi yëpp mu mën a àgg ci am na fi itam lu ñu tudde centre de formation professionnelle boo xam ne moom moom itam day tàmbalee suuf nag gone yi génn ci daara alxuraan yi te bëgg a teel a jàng métier mën nañ faa dugg jàng fa métier muñ soxla daal di génn tàmbali ko jëfandikoo ñi nga xam ne itam dañoo yor seen i métier ci dëkk bi te xay na bëgg mu bëgg ko gën a dëppale ak fi jamono toll ñoom itam mën nañ ñoo xam benn yoon ci ay bis gi wala ñëw fi ñu di leen fi defal defal li wax renforcement de capacité mooy yokkal leen seen i seen am na fi itam kii bu am solo boo xam ne këru xasida la ko sëriñ bi tuddee muy loo xam ne wax dëgg yàlla bi ñuy waajal manhaj bi sunu xel àggu ci woon waaye sëriñ bi ci boppam moo ko ci dolli dénk ko waa Hizbut Tarqiyyah ñoom itam gis ngeen liggéey bi macha allah fañ ci toll waaye am na nag pàcc bu am solo bu ci am mooy nos jàng jàngukaay yi nekk ci dëkk bi loolu itam moom sëñ bi da ko wutal xismu boppam commission boppam boo xam ne moom dañoo bëgg sax mu am inspectorat boo xam ne day nekk fii ci daara ji ñu lëkkaloo ci ak eh, IEF bi nekk Mbàkke ak IA bi nekk Njaareem ci tutelle tutelle ministère de l' éducation nationale ngir école yi fi nekk yëpp mën a formaliser wu ñi nga xam daal dañoo ñëwoon rek ubbi seeni école xëy na ña fay jàngee dese nañoo xarañ barab yee ñuy jànge xëy na dese naa méngoo fu ñu war a jànge waaye itam euh, daanaka mm, amuñu woon sax programme boo xam ne éducation nationale reconnaître na ko xam ne gone gi dafay nekk diir bu yàgg la mu jëlee bu fa jëlee dara yi daanaka du ko mën a jariñoo loolu nag ñu wut ñu soppi ko dëppale ko ak doxinu dëkk bi waaye mboolem nag ko fi école bu fi nekk te doon jàngale kii ñu dugal ci njàngum diine donte dañoo jël programme éducation national lu baax la waaye nag dañ ci yokk nag loo xam ne mbirum dëkk bi lay doon mooy jàngum diine ni ko Cheikhuna Ahmadul Xadim radiyallahu anhu jàngale xam ne ki fi ji génne moom dana am lu mu ëppalee nga xam ne daa jàng feneen waaw dana xam la kooko xam lépp waaye dana ci yokk nag loo xam ne moom dëkk bi mu nekk moo tax mu indi loolee te li tax borom dëkk bi sancoon ko mooy bu doon rek wajaxlu daaban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajal binaiya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi yooyu bay dañ koy jàng waxtu wu ne saa bu waxee dugal ko ci ndax loolu moom mën nañu wax ne mooy chaaru daara ji mën nañu wax ne itam loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ fas yéene doxal moo fi doon dox naka jekk waaye lii day ñëw rek ngir gën ko yokk sëriñ bi itam incha allah day gën a dooleel mboolem jàngukaay yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo xam ne lii man xaj la moo tax ñu tudde ko mën xëj boo xam ne daara yëpp mën nañ ko jël ko jëfandikoo ci seen i daara bu ko defee loolu bu noppee day mujj dañuy am manhaj mu waxaat ci Touba nga xam ne ki génn ci daara Cheikh Ahmadul Xadim ji ak ki génn ci jeneen daara ndax daara yi nekk ci dëkk bi yëpp daara Cheikh Ahmadul Xadim lañ daara joo ci mën a génne li ngeen di jàng day doon benn diplôme yi nga am macha allah yi fi nekk moom état reconnaître na ko ba noppi bu boobaa ku mu neex sax mën ngaa indi say dong ñu ñëw def bokk ci examen yi ñu def fii ku ci am mustawa wala mu at mi ñu jox ko shahada boo xam ne daf koy mën a jëfandikoo fu mën a dem ci daara alquran ji ci majlis bi ak ci ak ak ci dirasaat ak ci ak ci majlis bi waaw yi ci des moom ay ay école la ñuy formel waaye noonu daal ci gàttal mooy mooy tënk bi sëriñ bi nag joxe ndigal fas yéene koo ubbi altine dalal gone yi ñu tàmbali njàng mi mu koy yëgal nag mboolem jullit yi di ko yëgal mboolem rawatina bokki taalibe yi nga xam ne nag ñoom ñoom moom liggéey bi waaye di ko yëgal itam képp ku nekk Sénégal rek ndax lii yëfi askan wi la yëfi Sénégal ñëpp ko bokk te xam-xam ñëpp ko bokk rawatina xam-xam bu jóge Cheikhul Khadim ndax ni ma ko waxee mooy rek li yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngaloon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy rasulul alamin mooy rasulul bashariya yaa xam ne borom subhanahu wa taala da ko yónni ci mboolem bindee fi yónni ko ci mboolem nit ñi loolu lañ wax ndax ni ma ko waxee ni ci manhaj bi xisma bi nga xam ne mooy xismu madaris al hadith sa lañ koy tuddee wala école moderne wala école classique dañu xool ecole yi fi nekk yëpp bu ci ne xool la nga xam ne daal jàpp nañ ne lu ca mat a dolli nag ay borom xam-xam ñoo ko tëgg seet la nga xam ne méngoo nañ ko méngoo naag dëkk bi nit ki soxla na ko te mën nañ ko cooy def itam te du ko sonal lool nga xam ne du tee muy jàng programme ñi nga xam ne moo fi nekkoon waaye nag dañ ci yokk li ci mënta ñàkk mooy njàngum diine ni ko sëriñ Cheikhna Ahmadul Khadim radiyallahu anhu jàngale lool defe naa ne bu noppee ba ñëpp tënku ci daanaka dana dana dana wàññi lool dana bu ko jeexalu sax da koy war a jeexal sax ndax Tuubaa kenn waru fay jógee di sàkku ji xam waaye nag njàngum Touba nag dafa am dafa war a dëppoog dëkk bi Serigne Touba li taxoon borom dëkk bi ci dëkk bi li tax ñuy wax bayit yooyu yëpp loolu xam ne rek dëkk bi moom dafa am lu ci borom lu ci borom bëggoon ñaan ko fi te lu mu fi ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal na ko ba noppi waaye nag sàmm sàmm gi ak doxal gu zahir si moom ñi fi nekk ñoo ko war a def loolu moo tax nag man xaj ji ñëw nga sàmm loolu defar loolu ndaw ñi daal li ma ko waxee ñu yar leen ci diine yar leen ci njàngaleem Serigne Touba ñu mën a waaw maanaam lépp nag lu ñu fiy def dañ ko dëppalee ak ni nga xam ne noonu la njàng di doxe ci réew mi ndax ku ne xam na ne njàng moom cim réew état moo ko mën a yor kum neex nag mën ngaa dem def sab jàngukaay waaye boo ci dëggoowut ak état diplôme ba nga fay amee dañ la koy bàyyee loolu du am njariñ ndax nit ki itam nag buy jàng xam-xam xam-xam ne ko sëriñ bi waxee jàng ngir yàlla jàng ngir tasaare xam-xam jàng ngir xam-xam waaye loolu da cee bokk nit ki mën cee sukkandiku ba mën a dunde aw ñaqam mën a jëfandikoo xam-xam waaye mën caa dundee ak ñaxam loolu moo tax nag diplôme bi bu fekkee état reconnaître ko day doy waar moo tax fii ne mboolem luñ fiy def rek dañ ko dañ ci ànd ak état bi ñoom it ñu nangu nag li nga xam ne moom lañ bëgg mu doon doxinu Touba ñu ko bu wér a wér ànd ci ak noonu moo tax fii ne mboolem jàngukaay yi fi nekk am na agrément wu état wu Sénégal naka noonu commission boobu ma lay wax tudd naa inspectorat loolu état lañ koy àndal nga xam ne waa inspection bi nga xam ne ci ministère de l' éducation nationale bokk ñoom dañuy bokk ci commission boobu bokk nag boroomi xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo tënk liggéey bi te biñ koy tëral itam mboolem jàngukaay yi nekk ci dëkk bi lañ ko àndal yu mag yi tàmbalee ci al azhar bu Cheikh Mouhamadul Murtada nga xam ne ku ne xam ne seen taxawaay bokk na ci ñu doon waajal programme bi euh, école Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma bokkoon nañ ci ak mboolem jàngukaay yu mag yi nekk ci dëkk bi ñi ci des nag nga xam ne ñoom dañoo ñëw ci dëkk bi ubbi seen i kii ñoom itam dañ leen di woo nag jox leen programme bi sëriñ bi sëriñ bi joxe ndigal ne mboolem jàngukaay bu nekk ci dëkk dina tënku ci lii te loolu ñëpp ci tënku ndax njariñ la lu mën a nekk la te ñëpp ko yàkkamti ñëpp ko soxla bu boobaa nag jàpp nañ ne jafe-jafe yu baree bari dana wàññi ko bokk na ci njariñ yu université bii nag moom mooy dimbale ñi nga xam ne dañ daan am bac arabe ñu di leen orienté université Cheikh Anta Diop wala ñu deen di orienté ci yeneen université yoo xam ne dafay sori nekkuwaay ba di jafe ci ñoom am na ci ñoo xam ne sax dañu mujj am gàllankoor ba bàyyi seenum jàng niñ daan daj itam di jàng bitim réew jàpp nañ ne lu ci bari bu jeexut it mën naa ko ndax xam-xam bu am njëriñ fi nekk diplôme bu état du Sénégal reconnaître njàng moo xam ne itam day dëppoo ak loolu nu tëggal ko sunu bopp nag loolu itam bokk ci li am solo ndax itam nit ki nag su ko mënoo def loo xam ne rek da nga ko jëggaani lu mu yàgg-yàgg ci yow te nga jëggaani ko dana am lu ca des waaye li nga defal sa bopp nag du yem ak li nga xam ne moom da nga da nga da nga daa ci yow waaw loolu nag moom àggaguñ ci waaye xam nga dañuy soog a tàmbali incha allah booy dox moom liggéey bu ne ci benn jéego ngay tàmbalee waaye incha allah loolu jàpp nañ ne dana ñëw ndax sëriñ bi moom lépp loo xam ne mooy tax askan wi mën a yaru yarub lislaam mën a yaru yarub bu dëkkoog njàmbale njàngalem sëriñ Tuubaa ak soxla askan wi rek loolu tax nag lii nu xam ne ab tàmbali la te gis nga ñëpp àndandoog sëriñ def ko fi kon nag li ci des itam lu mu ci sémb rek noonu la nit ñi di ànd ak moom incha allah loolu moom buñ ko se boolee lépp xam naa dana jege ñetti junni ci tàmbali bi buñ boolee ñetti ñetti yooyu yëpp ñett dana jege ñetti junni bu ko rombul tuuti bu ko defee nag nuy dox nag jëm ci kaw ndax bu ci ne rek xam ngeen ne gis ngeen macha allah am nañ luñ tàmbalee waaye bâtiment yi am na ci yoo xam ne yëgagul bu yëgee bu soobee daal di yokkaat yokkaat kii bi yokkaat yokkaat yokkaat ñi war a waaw ñi war a dëkk nag bu dee gone ndaw yi moom fi ñu leen waajalagul nii eh, junne ñaar téeméer la yoo xam ne tabaxal nañ leen fi ñu war a dëkk ku ci nekk lalam ak fa muy jànge sëriñ daar yi leen di jàngal itam bâtiment yi ngeen di jàkkaar lool moom ñoom lañ ko waajal nga xam sëriñ daara bu ne day am néegam am saal de am na ñu leen di tooñ sax naan leen eh, yéen eh, hôtelu hôtelu cinq étoiles lañ leen di defal waaw maa majaalis bi tam noonu ñoom itam incha allah noonu dañuy defee eh, bu dee kulliye bi nag UFR yi moom wutalaguñ leen ay dëkkuwaay amaguñ li ñuy wax campus amaguñ ko waaye ci kanam incha allah bëgg bokk na ci nga xam ne bëgg nañ ko am majaalis bi nag moom moom moom xam naa ne mëneesagu ko wax ndax fi mu nekk ni mbind mi niñ ko songee doy na waar moom dëkkuwaay yi moo noppeekul waaye ñi nga xam ne dañuy jàng di ñibbi moom lim bi dana bari moom moom jàpp naa ne ci kanam tuuti moom waaye ñoom it gis ngeen macha allah taax mi ngeen di jàkkaar loolu yëpp seen càmmooñ nga xam ne moom yaakaar naa daanaka ba ñeenti junni mën nañ faa jànge waaye na tàmbali bi rek dañuy tàmbalee lu yem moom seen bâtiment moom macha allah noppi na waaye dëkkuwaay yi nag moom moom lañ tabaxagul loolu it xam naa ne ci yi ñëw ci kanam lay doon incha allah. moom bi sëriñ bi wootee rek ñëpp dañoo fax ñëw kenn ku nekk rek fa nga mane nga foofa ñi nga xam ne booy borom xam-xam ni ma ko waxee ñoo njëkk def waajtaay wi loolu tam lu am solo dañoo bëgg xam li sëñ bi bëgg a def ba xam ne lii mën xaj tarbawi la modèle éducatif lay doon ñu tëggee ko noonu ci kuréel yu aqsaam kuréel yu fasanti ko yi ma doon lim ñu soog koo tëral sëriñ bi daal di fab nag lool yi jox ko ay architecte ne leen daa bëgg ñu jëmmal ko ci ay plan ñoom ñu soog ko def ay plan moo tax biñ ñu tabaxee tojaatuñ dara ndax lu ci ne xam ne ñaata nit dafa war a dem ñaata salle de classe la war yaatuwaay ba naka la war a doone yooyu yëpp dañ ko xam ba noppi ñu soog ko ñu soog ñu soog a jëmmal plan yi bu noppee nag mu daal jox euh, sëñ Abdou Ka ne ko maa la jox nga tabaxal ma université bi loolu moom diggam ak sëriñ bi la sëriñ bi itam moo koy fay nga xam ne nag li nga xam ne murid yi moom la ñuy joxe muy daayira yi tay sa ajjuma wala xam ni ma ko doon waxee dajale seen seeni fukk seeni ñaar dërëm yëpp ko sëriñ bi wala ñu jox ko seenu sëriñ mu indil ko sëriñ bi ca lay dugg mbokkum taalibe muy raam ba yegg si yëkkati addiyaam jox sëriñ bi la ko joxal boppam ci lay dugg kilifa gi nga xam ne moom itam daa bokk ci njabootu sëriñ bi ànd ak njabootam ñu dajale addiya ñëw jox ko sëriñ bi ca loolu lay dugg tool yi nga xam ne nit ñi dañ koy bàyyi muy tooli àllarba di ko indi sëriñ bi ci loolu lay dugg ñi nekk bitim réew di yónnee seen addiya loolu itam ci sëñ bi lay dem sëñ bee ko yoral boppam nag moom mooy joxal boppam sëñ Abdou Lahad Ka waaye liñ ci xam mooy am na commission technique bu xarañ ak bureau de contrôle bu ñëpp xam ci àdduna bi boo xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi di xool ndax dëppoo na ak norme yi waaye nag lu cay génn moom sëriñ bi moo koy génne fay ko ko am na nag ñoo xam ne def nañ xëy na loolu joxe seen kër sëriñ wala ñu ñëwoon sax jox sëriñ bi addiya man xam naa ci ñooñu waaye teewul dañoo sasuwaat nag sëriñ bi ne ko kat dañoo bëgg nga jox ñu ab liggéey fii ñu toog nii waa Touba ca kanam ñoo ko defal gis nga bâtiment bi macha allah ni mu amee solo teewul ñoom ci njëlbeen ga yëkkati woon nañu nañ addiya jox ko sëriñ bi waaye teewul ñoo tabax bâtiment bii nga xam ne fi lañ toog nii tey muy bu am solo bu moo xam ne macha allah yii nga xam ne moom lañ jàkkaar lool moom itam mbooloo mu jóge Ndakaaru ñu tuddee leen palia al muridiya palia nag ci ba ko sëñ bi waxee dama koo <laughs> xaw a kii sax da ko ah boobu bàddi sëñ bi moom waaw maanaam mi dafa yaatu lool lool lool lool ñoom itam ñoo sasoo bâtiment yi ngeen gis yëpp muy juróom-benn xaw ma juróom-ñaari bâtiment nga xam ne dong yi jàng alxuraan yëpp fi la ñuy dëkk ñu ma doon wax junneeg ñaar téeméer yi ak ñi leen di jàngal ba fi ba ci fi ñuy xewloo moom itam ahlu soada ñoo ko def muy ab restaurant ak itam eh, ak itam mbaar yi nga xam ne itam gone yi fi la ñuy mën a toog di kuréel wala ñuy waxtaan ak ñoom ci sëriñ bi di leen yar yar bu morit di leen yar yar bu lislaam mbaar yu am solo la yooyu mujj itam benn bi waa polytechnique bu Thiès di ay donga ay ingénieur ak i ak i ñoo ko def ñoom moom boo ci duggee rek xam ne lii moom am ingénieur eh, laalaat nañ ci dugal nañ seen touche bopp beneen bi itam ñu nekk Montpellier di daa daayira bu am solo ñoom it ñoo ko def muy liggéey bu am am solo gis ngeen am na ci yeneen yoo xam ne sëñ Cheikhoum sëñ Abdou Hakim nga xam ne moom gis ngeen jumaa ji ak poste de santé bi waaw jëlaat na sax beneen restaurant boo xam ne moom xam naa gaa ñi xawoon nañ cee doy waar ndax ñoom dañ ñëwoon lu laal ci daara ji kenn du ci laal waaye defe naa waxtaan nañ ba déggoo nañ ba ñu ngi koy tàmbali suñu am di xadifaal nga xam ne moom miir bii du ko sëñ bi waxee yeesalaat ko daf ne sëñ bi moom du ko du ko yeesalaatal lu yees lay indi gis ngeen ni mel nga xam ne la fi njëkkoon jàpp nañ ne buñ ko pentraatoon rek ñeen fukki at moo ko fi defoon mu yàgg sëñ bi bëggoon waaye moom gis ngeen ni mu ko defaat ak bâtiment ba yéen ngeen di jàkkaarloo nga xam ne waa JAPA mooy bureau contrôle bi ak technique bi foofu moom mooy seen bureau fa la ñu liggéeyee waaw am na itam ñeneen ñu fi sasu mooy waa liggéeykat yi nekk ci dëkk bi ñoom itam ñoo yor ñaari amphi yoo xam ne benn bu ci ne dana mën a jël ñeenti téeméeri nit ay am na këru xasida yi ni ma ko waxoon waa Hizbut Tarqiyyah nga xam ne moom sëñ bi leen ko joxal seen bopp ñu nekk ci am na itam centre de formation professionnelle boo xam ne ñi ma doon wax léegi ci gone yi bëgg a jàng métier ak ñi bëgg a yeesalaat seen métier boobu tam état bi ñoo ko fi defal sëriñ bi wax ne dañ ko waajaloon ci région yi nekk Sénégal yëpp ak ci département yi waaye dañoo bëgg nag moom beral ci benn sëriñ bi boo xam day doon seen wàll ci biir université bi ñu man ci tàggat tàggat tàggat ndaw ñi loolu daal bu ma juumul ci lim bi xam naa mënuma ko matal waaye ci tënk yooyu ñu ñoo fi nekkagul am na itam sax yeneen yoo xam ne Mm, amoon nañ yéene def fi dara xam naa ne ñu ngi ci wàccaay bi danañ ñëw waaw yoon yem ci biir moom moom loolu dégg naa ndax waaw ndax sëñ bi tam dafa am méthode maanaam fii ne ku ne lam la jox loolu la nga yor ñun lépp la aju ci wàllu pédagogie ak wàllu daara bi mooy doxal université bi loolu raw dara yaaxin la ko dénk nga xam ne loolu moom ñun rek lu ci waxal li aju nag ci wàllu yeneen yi nag jabha al jabha al muridiya lil ulumi wal amal nga xam ne loolu tam ci sëñ bi sëñ bi man la joxoon tur bi <laughs> seen ndaje bu njëkk ba mu fa yebalee bañ ñëwee waxtaan ak moom ba ñëw wax ko lañ fa jëlee ne ko dañoo bëgg tur ca saasa la daal di wax al jabha al muridiya lil ulumi wal amal waaw nga xam ne moom ñoom itam ñoo yor wàllu googu loolu sëñ maam Thierno moom sëñ Moustapha moom Cheikh Amadou Bachir moo ko jiite xam naa ne moom itam loolu moo ci gën a mën a leeral nga xam ne kon ni ñu ci wax noonu ci kaw rek lañ ci lañ ci waxee waaye lu ay ci wàllu wàccaay bi daal ak doxalin bi moom noonu la ko noonu la ko sëriñ bi dégg. waaw ok waaw ni ma ko waxee woon ñu jàkkaarloog waa Touba ci kanam yi mooy tariqa tariqatul muridiyya baat bu kii nag waaye ñoom liñ leen di tuddee mooy opérateur économique murid waaw wala homme d'affaires murid ñenn ñi sax milliardaires yi liñ leen di tuddee kon ñoom ñoo defar ñoo defar loolu. waaw programme bi nag moom incha allahu taala altine lay doon nga xam ne moom sëriñ bi daa bëgg nag ñëpp ñëw santale ko borom subhaanahu wa taala ci liggéey bii nga xam ne ni ma ko waxee istimraar dafa tàmbali woon ci sëriñ bi ñëw. ba yegg si ci moom nag mu war ko tàmbali ci anam gii ndax fu jamono ma sa toll rek toll liggéey bi toll na fa fii la jamono toll nag ñoo sëriñ bi tollale ko fi waaye moom mi doon wax di tudd ñetti téeméeraat bu boobaa itam beneen jamono lay doon beneen université lay doon waaye waxtu wu rek ci yi gën a kawe lay bokk ndax sëriñ bi moom la gën rek lu ne la gën la ci am bu ko defee altine la war a ñëw incha allah taala ubbi jàngukaay bi ko ci dalal gone yi jàng alquran ak ñuy jàng xam-xamu majalis waaye tàmbaliwaale it nag mooy collège euh, dirasatil islamiyya bi ak fi nga xam ne fi dañuy jànge wàllu wér-gu-yaram suba te suba gi nag lañ bëgg ñëpp teel a ñëw ndax sëriñ bi incha ñëwal boppam waaye njiitu réew mi itam wax na sëriñ bi ne ko maa ñëw ànd ak yow liggéey bu màgg boobu bi bis bu màgg boobu bi loolu itam ñu ngi ko yëgal nag mboolem Sénégalais yi di ko yëgal mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci gouvernement bi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy sax opposition bi ndax sëriñ waa ñëpp la jaboote sëriñ bi moom amul amul amul frontière ci kenn mboolem askanu Sénégal ak njabootam lañ mboolem julli di ak njabootam lañ kon bis bi sëriñ bi mi ngi ko yëgal mboolem Sénégalais yi mboolem ku nekk ci biir Sénégal am na sax ñoo xam ne yëgal lañ leen ko ñu war a jóge bitim réew ñëw kon nag ku yëgal ku nekk bitim réew rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi di sa njaboot kon daal sëriñ bi mi ngi ko yëgal mboolem Sénégalais yi mboolem julli di waaye rawatina mboolem taalibe murid yi nga xam ne ñoom ñoo moom liggéey bi te ñoo ko jëf ba mu yegg si fii di ñaan ñu fekke ko ci jàmm ak salaam te sunu borom bàyyil ñu fi Cheikh Mouhamadou Mountakha te wéral ko te sant nag ñemewuñ ko moom waaye danañ seede ne dañu yoonu murid niñ ci jëfe wax dëgg yàlla xel mënu ko woon xalaat ndax fi jamono toll ak li ñu sëmbu ndax lii benn la ci liggéey yoon bi li ci gën a doy waar mooy loolu fii ne kenn ku ci ne yaa ngi def fi dara barab yaa ngi def barab yaa ngi def dara fi barab xoolal dëkk murid yi niñ toll xoolal kilifa yi murid yi niñ toll xoolal taalibe yi murid li ñu defal seen bopp ci diine di ko def ci lu baax waaye teewul gis nga ni ñu jëfe ci liggéey bi ci diir bu gàtt bi décembre 2018 nga xam ne kon booy wàññi 2019 ngay tàmbali te biñ tàmbalee liggéey bi nag moom toogaat nañ daanaka lu mat at soog a liggéey bi sëñ bi teg na xeer yi ñu toog lu mat juróom-ñett ba juróom-ñeenti weer ndax xam nga loolu peaufiner euh, euh, euh, kii yi defoon plan yi ñu defoon nag organisation organi chantier yeeg def def taxawal saa nga xam ne loolu daanaka jëlaat naat at biñ ko tàmbalee léegi te mu mu ñëw nag fii jamono gënoon a méttee mooy at ati mbas nga xam ne moom àddina bépp la woon rawatina fii ci Sénégal waaye dafa mel ne murid yi nag boobu lañ gën a soññiku boobu lañ gën a sawar boobu lañ gën a jaaju ngir def lii nga xam ne xam nañ ne bëgg-bëggu sëriñ be waaye xam nañ ne lu ko borom bi subhaanahu wa taala defal ba noppi la ñu xam ne kat loolu moom ni ma ko waxee woon keroog bàq bu tooy la ko amu jiwu nag na nga ji te wóor la ne loo fi ji dana sax dana jebbi dana meññet dana barkeel te dañ la ko dencal foo xam ne yàq du yegg te fa la ko borom bi subhaanahu wa taala mi tax nga koy def di faye dara du fa doy waaye nag moom ci baaxam ak yërmandeem buy fay ni mu toll lay faye kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sentu ñëpp nag ci tur sëriñ bi sëriñ bi bëgg na ñëpp ñëw sant le ko borom bi subhaanahu wa taala ànd ak moom tàmbali bi liggéey bii te fay si ne ko ànd moom muy wéy nag ndax université moom dafay dox rek booba addinay tukki incha allah ay nit di fi jànge waaye muy soxla ay koppar di soxla taxaw di soxla ay boromi xam-xam yuy gën a amélioré di gën a dëppale ak jamono waaye nga xam ne ku ci jàppoon daal na nga xam ni soxla gi ñu soxla moom day wéy waaye loolu sëriñ bi wax ne nag bu laal suuf nañ ñaan bu boobaa nag ñu ko ñu ñëw rek gën a gën a gën a gën a jàppandal gën a jàpp ña nga xam ne ñoo leen jiituwoon ci barkeb Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa